jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ñoo ngi leen di euh, nuyu yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi déglu rajo Rewmi FM 97 point 5 euh, ñu leen di jaajëfal bu baax a baax di rafetlu seen ànd ak programme bi mbokk yi Abdou Khadre Seck moo nekk ci kàddu gi Adama jàlloo nekk ci wàllu technique bi ñuy nuyu mbokk yi nga xamante ni ñooy déglu rajo Rewmi FM samdi bu jot bu 15 heures jotee jàpp 16 heures. ñu euh, ànd ak yéen ci seen euh, émission pencum euh, réew mi di nuyu sunu mbokk auditeurs yëpp di nuyu Maram fay muy bàyyi xel émission bi nekk ba diwaanu Colobane di nuyu madame Fall nekk de Padoa Buldes madame Ndiaye bawol bawol ñëpp ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu Cheikh Mbacke solution ñoo koy nuyu bu baax a baax CM automobile nekk Castor di ñu bàyyi xel moom tim ñu koy nuyu bu baax a baax ak ñi nga xamante ni ñoo toog di ñu bàyyi xel mbokk yi nag tey. seen émission pencum euh, réew mi dafa daal di dellu am mbégte dalal nag euh, Fatoumata euh, si moom nag mu daal di moo nekk directrice centre bopp waaye tamit moom mu yàgg yëngu ci li nga xamante ni moo soxal wàllum développement ak ONG bi di USE waaye nag li tax tey ñu gën ko invité dafa am benn kuréel boo xamante ni dañu ko daal di sos muy initiative pour l'annulation de la dette africaine maanaam muy borob Afrique bi nga xamante ni réewu Afrique yi dañu ko amee mu nekk xaalis boo xamante ni xaalis bu takkoo takku la te ñu gis ne euh, bëri na ay euh, chef d'état africain yoo xamante ni ñoo ngi sàkku ñu baal leen li nga xamante ni maanaam mooy bor bi euh, loolu sax li ko gën a indi gis ngeen ne bokk na ci li nga xamante ni mooy force Covid 19 li nga xamante ni mooy Covid 19 bi muy woppi coronavirus ji nga xamante ni daal nay feeñ ci àdduna bi faagaagal nag économie réew yu baree baree baree bëri rawatina nag réew yi nga xamante ni tey mooy réewu euh, réewu Afrique yi ndax fan yi sax euh, ñi nga xamante ni ñooy waa banque mondiale def nañ benn étude euh, nee nañu Afrique bu coronavirus ji weesoo soo muy tuulee danañu am ay jafe-jafe yu méttee méttee méttee ci seen wàllum économie te fii ci réewum Sénégal tamit gis ngeen jafe-jafe yi nga xamante ni réew mi am na ko ci wàllum économie ba nga xam ne sax. njiitu réew mi di président Macky Sall moom ñeen nañu sax dañ ko doon euh, caricature di wax ne mooy nekk moo nekk avocat chef d' état africain yi ndax gis nañ ne Covid bi dafa commencé si réew mi rek Macky Sall mel ni ku solo robu avocat di kaasal réew Afrique yi ngir nag ñu daal di annuler li nga xamante ni mooy dette bi euh, ba pare nag euh, li ma si jaaxal ñoom dañ see yokk sans condition loolu nag xañ na Fatoumata Sy mi nga xamante ni moom la ñu invité tey te mu bokk ci kuréel googu. %e danañu si daal di euh, dikkal euh, Fatoumata si ñoo ngi lay nuyu. Ah, maa ngi leen di fay. Mhm. sëñ Abdou Khadre Seck. Mhm. donc di leen gërëm di leen sant ci invitation bi donc di ñaan vraiment lépp li ñu fi wax rek nit ñi ñu mën a ci am njariñ ak dégg-dégg. ci mhm. li nga xam ne mooy moo ñu fi andi tey. d'accord. li nga xamante ni mooy euh, kuréel gi comme ni ma ko waxee sànq mooy initiative euh, pour l'annulation de la dette euh, africaine yow da nga bokk ci kuréel googu bëri ñoo xamante ni nag ci lañu ñu bokk danañu ci ñëw waaye bala ñuy ñëw ci li nga xamante ni tamit moom mooy kuréel googu danañu ñëw yow acteur de développement nga ba pare nga nekk directrice centre de bopp waaye coronavirus dañoo gis ne dafa feeñal lu bari luy wane ne réewu Afrique yi parewuñu même mën nañoo wax ne réewu àdduna bi bari na ñoo xamante ne que parewuñu ci lu jëm ci wàllum wér gi yaram euh, yow nag comme da nga nekk ci wàllu woowu euh, laaj bi ñu lay njëkk a laaj soxna Fatmata mooy coronavirus bi mu dikkee ci senegal gis nañ ne Sénégal ndeke ñun parewuñu ci lu jëm ci suñu wàllum wér gi yaram malade yi sax fu ñu leen dugal. boo dee xool dañoo dem loué ji li nga xamante ni maanaam mooy ay euh, ay hôtel ak euh, xeet yu ni mel bëriwuñ tamit tey soo xoolee ci biir euh, biir Sénégal gi yëpp professeur Moussa Seydi bi mu demee Ziguinchor wax na ko nee na fekku fi ay jumtukaay ba nga xam ne day mel ni Dakar kese moo am ay jumtukaay loolu yow en tant que koo xamante ni tey yow yaay jiite centre bu bopp yaay directrice bi lan moo ci sa xalaat ci Covid 19 bi ak ni mu wanee ne. Sénégal parewut ci lu jëm ci wàllum wér gi yaram waaw euh, gannaaw bi ma la nuyoo donc nuy auditeurs yëpp je pense que xëy na peut-être ni nga defee introduction bi euh, dangaa da nga ko jël rek ëmb ko ci généralité euh, ndax li wundu peut initiative bi ñu jël ko Covid bee tax mais ñu wax ne ne xëy na suñu système de santé fii ci Sénégal walla ci Afrique parewul waaw déedéet am na am na lu fi am mais peut-être am na lu manqué am na lu matul te bul fàtte ni tamit coronavirus dafa di loo xam ne nii épidémie la tey pandémie la donc dafa lëmbe àdduna bi yëpp daal di ñëw perturber système de santé yëpp ndax ñun ñëpp gis nañu depuis ñetti weer li nga xam ne ni faagaagal na ko ci système de santé réew yi nga xam ne ñoo ñu ëpp doole fuuf te wax nañ mun nañu wax ne tey foofu sax la gën a méttee donc ñun fii ci Sénégal mun nañu wax nañu am nañu benn système de santé bu fi nekk boo xam ne ni am na aussi expérience bu ñu ko di fàtte di wax di ko fàttalik aussi di yàgg taxaw ci ay épidémie donc expérience mu ngi fii mu des nag ne lii lu bees la xëy na nag lu la bett mën la loolu mën nañ ko wax mais fekk na fi tamit loo xam ne nii aussi résilience boo xam ne nii aussi am na mooy ne xool nañu ñi fi nekk di liggéey acteur de santé bi mooy ñiy faj mooy communauté yi mooy ñi nga xam ne ni tey ñoo yore décision yi mooy décideurs yi bi contexte corona bii ni feeñee nii ku nekk wane nga sa mënin wane ne nag ban taxawaay nga ci war a war a am loolu nag moo ñëw ne tey nag daal di xaw a perturber li nga xam ni tey moo fi nekkoon dispositif comme ni nga ko waxee déséquilibre yi amoon lépp dafa nekkoon peut-être Dakar ñu bàyyi yenn région yi xalaatuñu woon ne tey su dee am na ay complications wala par exemple ay cas grave ci yenn zones yi yenn diwaan yi naka la ñuy mën a fexee ba taxaw ñooñu défaillance yi ak yenn dysfonctionnement yoo xam ne ni amoon na te yaakaar naa tey contexte Covid bii wane na ne tey lu ñu war a rectifier la lu ñu war a rectifier la égalité ak équité bi ñuy wax dafa war a am en matière de santé en matière euh, ci aspect yu bari. Ah. waaw mm. comme yow da nga gis ne. Mm. Euh, tolloole. Mm-hmm. amul ci wàllum wérgu yaram gi. mun nañu wax ne en fait tolloole wala boog nga ne li ñuy wax ne tey par exemple accessibilité fexe ba nit ñi ñu mën a jot. ci ci ci ci paj mi yemale bi nga wax noonu tolloole boobu loolu effectivement problème la woon te dafa fekk ne ci biir suñu programme ak suñu planification au niveau par exemple national fii déséquilibre yooyu yëpp tey dañ ko jël duggaloon ko ci programme de santé yi fexe ba nga xam ne ni par exemple hôpital yi am de niveau un fi ñu nekk fii ñu fexe ba ci région yi nekk à l'intérieur ñoom tamit ñu fexe ba am ay hôpital yoo xam ne dinañu am plateau technique yu relevé je pense que ci processus boobu la ñu nekkoon mais loolu amul à ci région yi am nañu am nañu chance en tout cas au Sénégal que région bu nekk am nga tey par exemple benn hôpital bu mag au niveau régional na matériel waaw matériel bi nga xam ne nii tey si yenn spécialités yi mun nañu wax ne motul hmm. par exemple su ñu jëlee par exemple ñu ni wàllu jigéen yi lu ñuy soo xoolee ay région de périphérique yi ay Tambacounda wala ba ci sud-est beek yooyu wala ak yooyu Kolda par exemple fi nga xam ne tey dañ doon wax waxu mortalité maternelle ñu yàgg ko xeex parce que yoon bi waaw mu ngay am xam nga yàgg nañu fexe ba ñu xool ba nga xam ne nii par exemple yenn spécialité médical yi comme par exemple ay gynécologie mu mën a fa am wala ay pédiatre mu mën a am foofu parce que santé maternelle infantile bi dafa nekk loo xam ne ni lu am solo la par exemple ci diwaanu Matam donc déséquilibre yooyu yëpp tey dafa wane ne bon tey lu ñu mën a def yëpp nag justement initiative bi ñu jël pour tey suñu fexee ba nga xam ne ni lii dafa ñëw contexte Covid bi ñëw perturbé yëpp ci système li nga xam ne ni dañ ko tegoon pare ko def ko ay projet ki programme loolu yëpp def ko nar a perturbe def ko euh, war a nar a programme mais programme soxna si programme suñu fexewul ba nga xam ne nii am nañu ay ressources ak ay moyens ñu bañ a ñu xoj ci ay bor fexe ba tey leadership bi nga xam ne nii chef d'état am ko te président Macky Sall la jël initiative boobu société civile bi ñëw bëgg ko ci fekk si pour dooleel loolu loolu moo andi ba tey suñu tey fexee ba ressources yooyu ñu amaat ko xam nañu fan lañ ko war a dugal mooy ci secteur santé bi. waaw d'accord en priorité. waaw d'accord xam nga dama laa wax sànq na la. Mhm. Euh, lan lañ mën a jàngatee ci Covid 19 bi mais man li ma gis mooy mm-hmm. Covid 19 bi. Mm-hmm. dafa wane ay faay ci lu jëm. si mm-hmm. sunu wàllum wérgi yaram. amaana. wane na yeneen faay ci yeneen secteur. moo xam transport la. moo xam yeneen faay kana ñun dañoo war a li ñuy dundee dañ ko war a wala li ëpp ci li ñuy dundee. dañ ko war bayee fii ci réew mi wala dañ ko war a jëfandikoo fii ci réew mi mhm. wala li ëpp ci garab yi ñuy soxla pour faju dañ ko war a defaree ci réew mi moo tax ma ne la dafa bëri loo xamante ni tey Covid bi euh, dafa ko wane mais comme yow da ngay yëngatu ci wàllum mhm. développement wàllum santé mhm. moo tax ñu commencé foofu mais dama la wax rek na la boo xoolee xam nga sànq yaa ngi wax mbiru maternité ak jigéen ñi am doom ak euh, xeet yu demee noonu mais ci biir Sénégal tey boo xoolee bi ñu tëjee front bi ñu tëjee diggante région ak région tey ñaata nit yow yoo xam ne Kolda lañ dëkk ñi Sigicoor lañ dëkk ñii ñoo nga dëkk Kaffrine ñii ñoo nga dëkk Tamba ñi ñoo nga dëkk Diourbel ñi ñoo nga dëkk kawlax bu ñuy faju si yenn feebar yi amul ci région boobu ñu leen mën a faj ba dakaar la ñuy fajoo si diggante biñ ko tëjee nag ñaata nit a waroon a jël si rendez-vous te jël si rendez-vous loolu pro problème la mm-hmm. loolu tamit catastrophe la mm-hmm. te tey man waxuma ko ñi yëngatu ci wàllum secteur santé ñoom ñoo ko wax mm-hmm. euh, déglu naa leen ñoom mbaalo ja càmm ba tey ñu wax ko ne Sénégal dafa am problème ci lu jëm ci sunu wàllum euh, wàllum wàllum wér-gi-yaram wàllum hôpitaux yeeg euh, xeet yooyu léegi yow ban proposition ngay def après covid bi bi loo xamante ni mënul xaar pour Sénégal saafara ko je pense que li mënul xaar mooy tey li ñu wax affaire équité boobu. Mm-hmm. il faut ñu xamee ne Covid bi tey dafa yee je pense que ñëpp. Mm-hmm. mooy junj nga ko mooy li nga wax ne tey il faut que tey ñun. ñu fexe ba li ñuy wax souverainté en matière de santé luñ ci mën a xeex ñu xeex ko luñ ci mën a def ñu def ko wax nañ fi waxu garab yi médicaments yi xam nga bi covid bi ñëwee bi ñu waxee waxu Nivaquine rek ñëpp nee nañu mais ana usine ba mhm. loolu ñëpp wax nañ ko mhm. yàlla def na gis nga ci saa si la ñu régler problème bi donc parfois da ngay naan à toute chose malheur malheur bon mhm. donc xëy na tey sax résultat yi ñu am tey suñ ko amee yàlla loolu moo tax ndax amoon nañu donc am na loo xam ne ni amoon na fi ñu bàyyi ko te dañ ko war dooleel mooy su wàllu paj mi mooy wàllu garab yi donc il faut ñu def wala yemale yi mooy au niveau des région fexe ba aussi spécialité yi nga xam ne ni dafa nekk fii parce que kenn mënatul ne da ngay jóge tey région ba région pour yenn rendez-vous yi. Hmm. am na loo xam ne ni tey war nañ koo mën a régler sur place au niveau régional au niveau local. gaa état bi mu ngi ci doon jéego parce que yenn feebar yu bari tey fexe nañu ba def nañ ay unité au niveau des régions mais doyul. donc leneen aussi mu ngi ci mooy ne ne dañoo mujj di wut jël xarala yu bees yi te gis nañu aussi loolu dina dimbale lu bari. je pense que en matière de télémédecine ak yooyu loolu yëpp Sénégal commencé woon na ci def jéego mais Covid bi wane na loo xam ne lu mën a am la lu ñu mën a utiliser la te fu lu ñu fexee ba former ay spécialité ay technicien war nañ ci mën a taxaw donc plateau technique bi relever ko yemale bi je pense que tey priorité tey focus bi ñu def ko tey ci renforcer le système de santé infrastructure yi mhm. équipement yi mhm. matériel bi formation yi ressources humaines yi loolu yëpp bokk na ci loo xam ne tey je pense que priorité la. waaw mais tamit euh, xam nga soxna si comme yow yaa nekk Dakar euh, mm-hmm. ñu fàttali na yow yaa jiite euh, centre bu bopp. Mm-hmm. xam nga dakaar tamit de Dakar du Sénégal. dëgg la mais ñoom suñu kilifa yi dañuy jàpp ne bu dee faju waa Dakar kese ñoo war a faju te ñi gën a néew ci sénégalais yi ñoo nekk Dakar ñoo nekk ci capital bi bien vrai que fii mooy capital bi. Mm-hmm. comme ni nga ko doon waxee sànq loolu lu am solo la. mooy mbirum faj. ñu bàyyi xel. yeneen région yi ndax Sénégal war na paase foo xam ne autopsie sax boo ko doon def Tamba dakaar nga koy def see wala dakaar ngay xaaree résultat yi loolu catastrophe la ci réew mu ñuy wax ne dañu toll ci wàllum euh, émergence ak euh, yu ni mel loolu jàpp naa ne man xel wax dëgg yàlla xel waru kon waaw gaa xam na ni ñun suñu réew ak euh, amuñu doole donc bu ñu fàttane aussi am nañu waaw mëbët ak ambition mais amuñ doole wax wax euh, émergence. mais nañu xam ne ne aussi donc doole bi aussi euh, nekkul foofu. donc il faut que ko. d' accord danañ si ñëw si euh, doole ji amaana bu ñu si accès. Uh-huh. mais ñu ngi am yaakaar. parce que tamit contexte Covid bi ñu ngi koy wax mais bu ñu fàtte tamit lenn dafa tombeek Sénégal effectivement ni nga ko waxee juñu nga ko ñu ngi wax ay waxu programme émergence mais aussi ñu ngi wax aussi lenn lu am solo mooy un pays aussi qui a des ressources naturelles. Hmm. loolu aussi je pense que aussi lu am solo la. pour ñuy wax ëllëg ak si biir. d'accord euh, jërëjëf euh, Fatoumata Sy mm-hmm. ñu fàttali ne yow yaa jiite euh, kuréel gi de USE. Mm-hmm. di union pour la solidarité et l'entraide. centre boobu nekk directrice su centre. Ahmadou Malick Gueye de Bopp. Mm-hmm. da ngaa bokk ci comité bii nga xam ne dafa am benn comité pour ñu leeral ñi ñu déglu comité boobu mooy initiative pour l'annulation de la dette. africaine muy kuréel goo xam ne dañu tegu ngir xeex ngir bor yi nga xamante ni Afrique amee na ko ñu mën leen ko ñu mën leen ko baal ndax dañu gis ne réewu Afrique yi sonn nañ ci li nga xamante ni mooy euh, coronavirus. léegi tamit wax nañ ci mbiru santé lan la Sénégal mën a jàngee tamit ci mbiru euh, ci mbiru éducation tey euh, mm. ndax gis nañ ne tey par exemple tey am na projet boo amoon foofu étudiant bu nekk ordinateur. tey boo xoolee euh, ministre de l'enseignement euh, supérieur ma ngi wax étudiants ay sax loo xam ne mënul sax nekk te moom xam na ne mënul nekk mu koy imposer étudiants yi muy def ñu def ay cours yoo xamante nañ koy jaarale ci xarala yu yees yi soo demoon tey yenn région yu baree bari am na ci gox yoo xamante ni amuñu accès ci internet ñooñu amuñu internet non seulement amuñu accès ci internet beneen bi amuñu sax mën nañoo bañ a am ordinateur mais bu doon projet bi ñu fi tegoon ne étudiant bu nekk am ordinateur xam ne état bi moo leen koy yombal ordinateur buy jar deux cent mille wala trois cent mille état bi man ko subventionné ba étudiant bu nekk mën a am ordinateur mën a am clé USB ndax foofu la àdduna toll aussi mais loolu lépp sunu système euh, bi wanewutoon loolu yow lan moo ci sa xalaat ci lan lañ war a jàngee si si niveau boobu ci côté boobu. waaw je pense comme ni nga ko waxee ni ñu nekkee ci acteur euh, ci santé bi noonu la ñu nekkee ci acteur secteur éducation bi. bokk na ci secteur bi nga xam ne tey je pense coronavirus bi laal na ko bu hmm. baax a baax a baax ndax depuis boobu léegi jànguñu hmm. li nga wax nii nag ci jàng ak euh, jaar ci xarala yu bees yi mooy alternative bi ñu teg hmm. parce que moom laay wax ne ne loolu yëpp wone mais tamit foofu tamit am na ay mëbét yu fi amoon wala ay jéego sax yu ñu tegoon ba pare mooy euh, une université verte virtuelle xam nga créé woon nañ ko fii nit ñi nag jéemuñu ko woon comprendre waaw mais université boobu ña fa nekk tey ñooy étudiants yi ëpp ay jafe-jafe waaw mais je pense que ne wone na bu baax ne en fait su dee jafe-jafe dafa amoon tey ministère yi xawoon créé ko ba pare xaw a doya dal wala tuutil gis nañu en fait tey solution bi mbir mi en fait taxawaay bi tey war nañu foofu war nañ ci taxaw seetlu hmm. parce que tey dellusiwaat nañu ci loolu ci système boobu Mm. donc ñu ngi naan nañu def de manière virtuel nañu suivre cours yi dem mm. jëli ak internet mm-hmm. li nga wax nag lu am solo ndax étudiants yi gis nañu ñu bari ñuy ñëw fii dakaar Université Cheikh Anta Diop mm. ci gox goxaan yi la ñu jógee te tey ñu ci bari su dee dellu nañu seen diiwaan mm-hmm. mun nañu wax ne effectivement jafe-jafe dina am su dee amuñu ordinateur bu baax mm-hmm. amuñu accès internet wala boog sax xëy na smartphone bi nga xam ne téléphone bi nga xam ne tey su dee yàlla na la nga am ko yow di nga mën a wu à temps réel di nga mën a jokkoo ak nit ñi. Hmm. donc loolu tamit dafa wane ne mooy li nga wax programme yooyu amoon fii fexe ba ordinateur étudiant bu nekk ñu jox ko ordinateur am na lu ñu ko commencé woon. Hmm. su dee tey loolu loo xam ne dañ ko taxawoon teg ko je pense que mun nañ ko tey delloo si mais man si sama gis-gis. gis naa ne am na lu bari loo xam ne nii nguur gi daf ko teg fii ci programme projet mu des rek lu dul ñu war a ko exécuter xam na économie numérique mu ngi fi. Hmm. xam nga loolu mun nañu wax ne ne vraiment benn vision la de pourtant. Mm-hmm. mais est-ce que naka lañ ko jëmmalee. Mm-hmm. est-ce que réellement ñu ngi koy appliquer ni ñu ko war a mm-hmm. appliquer. te moonte de tey am nañu fu ñu war a teg seen tànk am nañu foo xam ne tey war nañu fa taxaw liggéey fa c'est-à-dire su dee leerul woon bu njëkk ba su dee xamuñu woon naka la ak fan la ñuy awee tey yaakaar naa contexte Covid bii. wane ne tey war nañu jox ay ressources yu doy côté boobu te yaakaar naa secteur boobu mu ngi yëngatu bu baax a baax ñu bari tey ñu ngi toog sur place ñu ngi jàng ñu ngi mhm. connecté wu ñu ngi jaay ñu ngi dem ak dikk fekk ñu ngi toog sur place. d'accord seeni marchandise a ngi dem ak dikk fekk ñu ngi toog sur place. xam nga foofu lañ toll jàng xam-xam bi mu ngi circuler waaw xam nga foofu lañ xam nga fi ñu toll tey ci mais ñun ñoo fa. Mhm. ñun suñu suñu njiit yi. Mhm. xam nga tey néewaan na léegi. ñuy déplacé am na ñoo xamante ne bu ñu doon commandé matériel dañuy déplacé wu Sénégal ba France wala ba Italie léegi am na ñoo xamante ni tey réunion yi ñuy def sax wala cérémonie yi ñuy def. Mhm. doon nga gis ku déplacé wu Sénégal dem ba France léegi defutuñ ko dañ koy def visioconférence àdduna bi foofu la toll. 2008. 2008 2009 université nit ñi dañu doon dem université inscrire université. Mhm. mais léegi dem nañ ba nga xamante ni nit ñi dañuy plateforme la ñuy mais léegi loolu laa wax. xam nga Sénégal soxna si. Mhm. xalaat yu baax. ak wax ay loi yu baax. Sénégal mais ñàkk ko jëfee. Sénégal bokk na ci réew yi si gën a yaafus. ndax yow euh, université virtuelle yi dañu sacrifier ay étudiants si loo xamante ni tey amul yenn explication yu ci gouvernement bu Sénégal def ndax tey soo nee université virtuelle ay étudiants inscrire fa ndax étudiants yi gis nañ ne am na professeurs yu nekk Sénégal mosu ñoo jógee ci réew mi te ñoo ngi jàngal ay étudiants yoo xam ne nekkuñ sax ci réew mi. kon mhm. bu ñu demee ba université virtuelle yi connexion kese ñu koy ñaxtu ndax ñun fii chaque jour ñu jël leen fii ñuy ñaxtu mbir moom loolu tamit mbir la moo xamante ni war nañ see jàngate ne vraiment lu ñu war a saafara la mhm. d'accord mhm. Euh, kon soxla si euh, Fatoumata yéen léegi seen comité bii ngeen teg muy euh, initiative pour l'annulation de la dette africaine lan moo tax ngeen ngeen sos kuréel gi ak ñan ak ñan ci bokk yéen kuréel en fait comme ni nga waxee en fait initiative la donc euh, dafa ñëw fekk si li nga xam ne ni xalaat bi mu ngi jóge ci président de la république. Macky Sall son excellence Macky bi mu amee comme junj nga ko wax nga ko. mu hmm. lancé daal di euh, porte parole euh, chef d' état africain yi ne ko yow yaay yore suñu kàddu. wax hmm. ko ñu ñu fa jógee nag ñu xool ba xool xam na ne fii au Sénégal am na yàgg nañu yëngu ci affaire annulation de la dette. Hmm. de l' Afrique wala sax du tiers monde. te ñu doon ay ONG ay mouvement social mouvement sociaux yu fi nekk ay euh, lëkkaloog ak ay mouvement sociaux yu nekk euh, bitim réew di yàgg xeex loolu te mu am ay date moment yu important yoo xam ne nii par exemple fii ci dakaar sax Dakar 2000 def nañ fi rencontre international sur l'annulation de la dette wax ci wax na ne lii bor yii tey suñu continuer di dem ci système bi eh, ñu ñu jàpp ñu nii xoj ñu nii ak institution internationale yi dina metti muy muy banque mondiale wala muy fonds monétaire international ci biir loolu nag ñu ne bon il faut ñu ñëw lii lu ñu yàgg ma bët lu ñu yàgg wax su ñu demee ba chef d'état yi tey jël ko def ko seen agenda def ko seen programme il faut ñu ñun tamit ñu ñëw ñu dàq si lañ ñu contacter ak kuréel yi nga xam ne ni tey dañoo bokk ci société civile yëpp muy Kongat plateforme ONG yi muy ñi nga xam ne ni tamit dañoo nekk ci monde politique ci pouvoir bi. ay économistes ak ak waaw bokk ci aussi opposition bi ay universitaires ay économistes bien entendu ak ay ay historiens euh, ñi nga xam ne dañoo nekk secteur privé acteur non étatique yi ñooñu ñëpp organisation syndicale yi yàgg mëbët yàgg kaas xam ne ne impact bi bi problème yi am. ci mhm. euh, euh, monde du travail ak ay licenciements ak ñoom seen ñooñ ñëpp tey ñoo bokk. ci initiative boobu tuddee ko IADA euh, lënkaloo nekk nag di xalaat pour am benn appel ak pétition boo xam ne dañ ko bëgg a lancer suñ ko lancer ñu xam ne ne lii tey askan wi moom moo soxla que bor yi nga xam ne ni tey dañu ne ala kulli il faut que ñun ñu fay ko fu mu nekk nii. ñan ngeen war a fay ñan lañ war a fay institution yi nga xam ne ñoo lebal état yi mooy ay banque mondiale fonds monétaire international mm-hmm. ak ñoomin seen il faut que tey ñu xoolaat loolu mm-hmm. li nga xam ne ni tey nag euh, suñu experts yi suñu intellectuels yi suñu universitaires yi yàgg nañ ko bind di ko wax mhm. ñu ñëw tey fekk ci comité bi mhm. def seen argumentaire développé ko lancé ko wane ne ñun lii suñu ko bàyyiwul du ñu mën a ala kulli aali tey ndax covid bi day jeex te il faut ñu xalaat l'après covid ndax yaakaar naa fa lay foofu lay gën a méttee d'accord mais mais soxna si euh, Fatmata dinañ ñëw ci euh, comme bor yi mais xam nga tamit am na loo xamante ni yéen yéen a ngi koy def mbirum jaay doole la ci naka. waaw kay xam nga lu tax yéen dangeen leb wala réewu Afrique yi. Mm-hmm. dañoo leb. Mm-hmm. Euh, leb bor atte bor. fay mm. xam nga yéen mm. euh, man yàgg naa dégg ngeen di xeex pour Afrique ñu annuler bor yi mais yéen li ngeen waroon njëkk a xeex man si li ma jàpp. mooy fi ngeen waroon a commencé xeex bi commencé wu leen ko fa ndax den ko waroon a commencé que bu ñu bori bu ñu lebee nañ xool fan la ñuy dugal xaalis bi ndax néewaana réew ci àdduna bi bu dul leb. te muy waaw mais réew yooyu di leb. boo xoolee seen bor yi du feeñ. mooy dañ koy dugal foo xamante ni dina am rentabilité dina amal njëriñ askan wa du ñu leb ba pare di ko saax saaxee mais yow Fatmata yow. moo di Giro mi bokk ci euh, IADA ak yeneen kuréel yi ci bokk yéen xam ngeen ne réewu Afrique yi dañuy dem lebi xaalis bu weex tàll ci seen turu askan ñëw di ko politique di ko saax-saaxee di ko gunnaandaat kon léegi lan moo tax yéen yéen kuréel gi lan moo tax kaasu leen woon kane bor yi réew mënul ñàkk a leb mais bor buñ ko lebee nañ ko dugal foo xamante ne foo am njariñ la tey Sénégal ñaata ñaata bor lañ am te kenn xamu ko bor yu bëri la te tey par exemple tey soo demoon ci éducation Sénégal ñu abri provisoire yi ma ngi fi ba léegi taw bi mu taw nii rek mm. bërki démb rek Kolda eh, eh, école yu baree bari dafa daanu mm-hmm. suñu wàllum wér yaram da ngay jàpp ne Sénégal mm-hmm. boo xaalis bi fan lañ ko dugal wàllum wér yaram bi dafa sooxe loolu bokk na ci taxawaay bi waaw xam nga euh, suñu ne annulation de la dette mooy li nga wax nii Euh, ñi nga xam ne dañ ko yàgg kaas mooy kuréel yi nga xam ne bokkuñu ci euh, gouvernement. Mmh. mooy ONG yi loolu mooy seen taxawaa parce que dañu soo déggee ñu naan ñoom annulation dañoo xam ne ne dafa am yenn dette yoo xam ne comme on dit illégitime. parce que mmh. xam nañu loo xam ne ni Afrique yàgg na li mu joxe comme on la dette du sang. na mmh. loo xam ne ni deretu africain yi moo moo tuuru ba ñoom ñu am li ñu am. donc argumentaire yi bari na mais fi nga xam ne ni ñun dañu fa taxaw. teg fa suñu baaraam. ne. ressources yi nga xam ne ñu ngi koy andi ñu ngi koy signé engagement yi nga xam ne chef d'état yi ñoom ñu ngi koy jël mhm. il faut que ñu xam ne engagement yooyu ressources yooyu ñu ngi koy delloo ci secteur yi nga xam ne mooy priorité mieux deuxième chose est-ce que ñu ngi koy utiliser fi niñ ko war a utiliser mhm. ndax mooy li nga wax loolu yéen ngi xeex loolu yàgg nañ ko xeex parce que yaakaar naa tey xam nga il faut affaire bi il faut ñu def link dafa am loo xam ne comment di dafa li wolof dafa lëkk link dafa am link ndax suñu toogee ñun di wax waxu euh, meilleure gestion des ressources wala ñu wax obligation de rendre compte la mhm. reddition des comptes mhm. wala ñenn ñi bon pour wax bonne gouvernance wala yooyu mhm. yenn euh, termes yi mais dafa fekk ne ressources yi nga xam ne moom la ñu utiliser def ko tey ci projet ki programme ala kulli aali il faut que saytu bi ñu saytu ko il faut ñu teg ay couleur ak ay ay ak ay mécanisme de suivi évaluation yuy wone ne ni nga wax nii li ñuy jël di ko jël comme bor ci turu askan wi est-ce que ñu ngi koy utiliser fu ñu ko war a utiliser. Mhm. loolu ci am solo la te encore li ñuy wax nii suñ ci taxawee ba nga xam ne ni tey par exemple am na luñ ci baal. Mhm. dindi mhm. suñu dindee bor yi mais ñun suñu priorité ak ñeneen ak ñeneen mooy tey comme ni ñu ko waxee ndaka lañ koy utiliser. d'accord loolu li fu ñu koy teg. <coughs> waaw mais mais mais yéen euh, yéen euh, bu ma leen dégloo. marché nañ ci wax nañ ci euh, def nañ ci ay pétition tey nag lii contexte bu bees la mooy li nga wax contexte bi nag c'est contexte tey mondial la. te yaa yaakaar naa agenda Afrique tey. bi mhm. nga xam ne ni tey dafa jëm ci développement ñoom ñu ngi xool na ñuy gisee Afrique fii ak 2063 euh, il faut que ñu taxaw xool ne suñu kaasee suñu waxee ne lii bëgg nañ ko dindi ak yan anam lañ koy dindee ak ëllëg ak si biir ñan ñooy taxaw saytu loolu te yaakaar naa il faut que su boobaa mu am ay initiative comme ñun initiative bi ñu bëgg a lancer ak yeneen initiative au niveau africain fekk su boobaa dinañu xool càmbar mbir mi xam fu ñu koy dugal ak naka la ak euh, est-ce que dina yegg ci nit ñi est-ce que nit ñi dinañu gis seen bopp ci li nga xam ne dinañ ko tëral ci ay projet ak ay programme donc euh, yaakaar naa daal remise en question la li nga wax ni il faut que ala kulli àlli fi ñu taxawoon démb ak barki démb pour di taxawal askan wi ñu xam ne tey la ñu war a gën a taxawaat d'accord mais euh, soxna si mm-hmm. dina ñëw ci dina ñëw ci IADA Euh, ni ngeen ko taxawalee ak euh, <clears throat> réunion yi ngeen ni euh, yi nga xamante ni moom ngeen di def <clears throat> maa ngi jégalu mbokk yéen a ngi déglu réew Rewmi FM seen émission pencum réew mi tey ñu invité Fatoumata si mu nekk directrice bu centre de bopp waaye dafa bokk ci benn kuréel bu tudd IADA muy kuréel boo xam ne dañu ko teg ngir baal africain seen seen bor yi. Euh, xam nga tey gis nga euh, Sénégal bari na réew yoo xamante ni tey ñoo ëppi bor. Sénégal mais bor yooyu soo xoolee. mën nañoo wax ne. presque du feeñ. mais yéen seen kuréel bii seen kuréel bii ma nga xamante ni tey euh, gis naa ko. yéen engagement bii ngeen am. ak Macky Sall ci boppam engagement bi Macky Macky Sall yéen. dafa mel ni sax soxna si yéen. Mhm. Covid 19 bi da ngeen see bëgg a porox ndollu rek. pour bor yi ndax yàgg ngeen a kaas pour ñu xam nga li nga wax ni lu am solo la parce que euh, am na ñoo xam ne tey ci bitim réew wala ñeneen ñoo xam ne mooy li ngay wax ni. Hmm. seen contre contre contre argument. Hmm. suñu chef d'état yi taxaw am engagement ak leadership bu day na wax. Hmm. nañu fexe ba bor yii ñu xoolaat ko am na ñoo xam ne ñu ngi wax leneen comme ni ngay wax nii. mais est-ce que du prétexte warul nekk prétexte parce que tey. comme ni ko waxee contexte Covid 19 bi bàyyiwul kenn coronavirus ñoom seen bu xam nañu tey il faut que ala kulli al comme ni nga ko waxee bor moom ala kulli al il faut que ñu dem lebi il faut que ñu lebi mais nañu xool ci yan anam la ñu nar a ah. amee ay dette ah, ah. accès accès euh, nañ nañ ci accéder loolu lu am solo la deuxième chose bi mooy il faut que suñu jógee ci lii ñu relancer économie bi parce que ñoom seen économie yooyu yi nekk au nord si ci pays développé yi gis nañu tey nu du coronavirus bi nu mu nu mu nu mu remettre en caution loolu yëpp. d'accord te xam nañu avenir bi aussi Afrique la bu leen fàtte ne jeunesse bi Afrique la. avenir du monde bi ñuy wax àdduna bi yëpp ñoom seen bët yëpp tey ñu ko teg ressources yi Afrique la espace bi Afrique la taw bi fii la naaj bi fii la respiration planète bi sax fii la mun nañu wax ne ne tey Afrique la donc yooyu yëpp yu am war a am seen seen gëm-gëmu bopp. seen gëm-gëmu bopp affirmer seen souveraineté bu bu ah. mat sëkk. xam na ne nag coronavirus bii comme yàlla ah. moo ñëw te wax na ne tey dañu war a taxaw ne face à face ak nit ñi parce que tamit euh, quoi qu'on dise euh, soo gisee xam naa mooy li nga bëgg wax na ne peut-être ñii ay ONG lañu société civile lañu lii leadership politique lañu mais xam nga lu société civile kaas kaas kaas kaas remettre en question. tant que fexewuñu ba ñiy dem di toog ci taabal bi ñiy signé ñan la engagement yi du chef d'état yi la. ñoom la waaw. waaw donc il faut que rek ñun lu ñu mën a revendiquer lu ñu mën a wax wax wax à un moment donné dañuy dem. renforcer négociation yooyu capacité de négociation boobu foog mu am. d' accord mais xam nga tey. Euh, Fatoumata boo gisee ma wax la na la. Mhm. Euh, Covid 19 bi. Mhm. mbaa réew ndax ku sañoon. Mhm. ñu baal ñu bor ñi bor yi mais tamit ñun Sénégal ñun xam nañ ne lépp. mënut a ñàkk ndax ñun kenn ku nekk fi nga nekk yow sa bopp en personne mm-hmm. da ngay dem nga leb banque da ngay leb leb nga ka nga dëkkandool mm-hmm. mais soo ko lebee mm-hmm. fa nga koy dugal am na njariñ wala amul njëriñ loolu mooy wax ji euh, moo tax dama ne la boo gisee sànq dama la wax ne la est-ce que du covid 19 bi si ngeen bëgg a porox ndollu comme yéen société civile yéen yàgg ngeen a kaas pour ñu baal ñu bor yi njiitu réew mi si boppam dañoo gis ne covid 19 bi dafa ne hop Macky Sall takk rajo yi di pour ñu baal ñu bor yi. Mhm. mais tamit fulla ak fayda bi nga xamante ni tey chef d'état yi ñoo ngi koy am di sàkk ñu baal ñu bor yi. Mhm. Euh, yéen tamit ngeen sos kuréel pour sàkku ñu baal ñu bor yi. Mhm. fulla fayda boobu ngeen am ak engagement boobu tamit est-ce que di ngeen am engagement bu ëllëgee si biir. bépp det bu Sénégal di am wala beneen réew dina ko dugal foo xamante ni njariñu askan bi mais li ñu jaaxal mooy ci biir Covid 19 bi rek. ñoo ngi gis ni Sénégal ñoo ngi lebal ñoo ngi koy gën a lebal xaalis di xam nga euh, en fait li nga ba li nga ba wax bi président Macky la jëlee lancé initiative waaw moom rek am na yeneen chef d'état yu ko Afrique waaw ci fekk si uh-huh. ba ñu demee ba ci biir gis nañu ñoo xam ne dañu ne comme loolu la sax yow yaa yore suñu moo yor seen kàddu yore suñu kàddu uh-huh. mais xam nañu ci biir kàddu bi mu yore il faut que ñeneen chef d'état yi ñooñ tamit ñëw dooleel ko ci. Mhm. waaw mais ëllëg ak si biir mooy li ngay wax noonu. ala kulli ali il faut que euh, société civile bi. Ah. ak yeneen organisation yi. Uh-huh. fi ñu taxawoon démb. Mhm. tey ñu gën a fa taxaw. même su dee tey il faut ñu dem jëli ay ay bor. mais bor yi ñuy joxe dinañu xam fan lañ koy dugal loolu laa la bëgg a d'accord waaw loolu c'est c'est une chose mhm. te bul fàtte ne aussi lépp luñ fi tëral ci programme am na toujours ay cadre de concertation yoo xam ne nii yeneen i kuréel dañ cee bokk muy yu gouvernement ak yoo xam ne ni tamit bokkul ci gouvernement. d'accord loolu tamit il faut ni nit ñu bàyyi ci xel. d'accord xam na ne lii initiative pour annulation de la dette la waaw. ok mhm. mais am na yeneen mécanisme yoo xam ne ni yu ñu war a teg sur place suñ ko tegee il faut que mu am ñeneen yoo xam ne dinañu ñëw ñoom tamit xool li nga xam ne ni moom la gouvernement bi nar a tëral ci ay programme pour mën a. relancer mais yéen seen kuréel lan mooy si euh, responsable. économie bi Macky Sall Euh, bon initiative la à part. waaw ah, seen initiative bi tey bi ngeen tegee seen initiative mën nañ ne tey euh, initiative euh, pour la l'annulation de la dette africaine. dañ ko war a structurer defaguñ ko. ñu ngi ko mhm. war a structurer. est-ce que waxtaan Macky Sall am na si information. dina ci am information am na ci information ndax idée bi comme moom moo ko lancé woon. ala mhm. kulli ali il faut que ñu delloo ko information wax ñun ci li nga xam ne lancé na ko comme mhm. naka la kuréel wax ko ne moom gis-gisam lii la. Mhm. Euh, moom sànni na idée idée bi def na proposition bi initiative bi ñi nga xam ne ñoo ko wër mooy acteurs yi acteur monde du travail monde euh, des ONG des organisations paysannes les jeunes les organisations de femmes les organisations de jeunes dégg nga euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci mouvement sociaux yi organisation faîtières yi ñoo ñëpp tey. monde politique bi ak euh, bépp boor bu ñu mënta nekk ñu ñëw nag wax ne ne dégg nañu li nga li nga wax ñun nii la ñu gisee. d'accord ah, ala kulli ali donc. Mhm. ñu delloo loolu ci ki nga xam ne ni tey ëllëg ak moom ba gën a yore euh, nekk porte étendard bi. Mhm. pour que en face du monde en face des grandes puissances mu ne euh, bor bi nga xam ne ni Afrique tey mu ngi xooj Afrique. ñu ne il faut que mu ñu ñu faj ñu ñu ñu fay ko il faut ngeen xoolaat bor boobu ndax ñun suñu jógee fii bëgg nañu ci bor yi ñuy nar a joxe ñun tamit ñu mën a jot ci bor yooyu mais ci yeneen i anam d'accord voilà léegi euh, est-ce que seen kuréel bi euh, hmm. am na ci yeneen réew ci Afrique am na ñu commencé déjà di xalaat ci lu mel noonu ndax comme ni ma ko waxee leadership bi peut-être Sénégal fii la la la la mais du tere ne am na yeneen initiative yu existé woon yi nga xam ne dafa existé ba tey ci question de la l'annulation de la dette mais lii jëm nii ci contexte bi nii yaakaar naa dana doon loo xam ne nii yeneen i réew Afrique dinañ ci xool pour que ñu xool nu ñuy mën a fexe ba réactualiser mhm. seen i cadre yi nga xam ne defoon nañ ko te depuis boobu ba léegi cadre yooyu dañu toogoon mhm. dañu toogoon rek depuis boobu di xaar crise économique bu ñëw ñu wax wax wax wax kaas mais léegi comme lii dafa ñëw lëmbee àdduna bi yëpp. Mhm. muy pandémie bi. Mhm. Covid 19 bi il faut que ñun ñëpp ñu xool yan alliance la ñuy def donc affaire bi du yem rek Sénégal. d'accord mais dégg dina euh, lëkkaloo ak. déglu naa yéen kii jàppale leen euh, Pape jàppale na yëkkati na fi kàddu yoo xamante ne pour ñu baal africain yi Emmanuel Macron. kasaali ko noonu mais nag euh, mhm. soxna si. xam nga yéen liir naa seen benn seen benn communiqué. mais dafa mel ni yéen bor yi dañ leen ko war a baal par force da ngeen da ngeen bëgg ñu annuler bori yi sans condition mais loolu nag soxna si loolu fan la tege nag yéen yéen Afrique réew Afrique ñoo lebi xaalis ñu lebal leen ngeen ne dañoo bëgg ñu annuler bor yi sans condition yéen lu ñu leen yoxamal yoxomal sax ngeen ne annulation totale ngeen bëgg yéen ak euh, président Macky Sall. waaw euh, loolu yëpp dafa am fu ñu ko teg ci argument. mais fan ngeen ko teg. Euh, soo gisee en moment moment donné ñuy ñu taxaw di wax loolu. Hmm. dafa fekk ne euh, amul comme dire les rapports sont inégaux. Hmm. xam nañu yemul de. Hmm. entre pays africains yi ak ñi nga xam ne ñooy ñooy joxe euh, bor yi. donc dafa mel ni yow danañ la obligé nga dem nga lebi. ci kii international bi. nga ñëw ñu forcer la aussi wax la yow ndax ban tëralin ñu jox la ko. c'est-à-dire que conditionnalité yooyu ñu lay teg. tant ñu ngi lay teg ay conditionnalité yow doo mën a am souveraineté bi nga xam ne yow di ah. yow di ko mën a am en tant que africain pour mais tey nag dafa fekk ne euh, ci année yi xam nga maa ngi lay wax waxu 2000 xam nañ ne ne année yii yëpp ci 2000 yii 2019 depuis 2020 euh, africain yëpp pays africain yëpp am nañu seen i programme d' émergence mhm. ñëpp a ngi wax donc pays bu nekk réew bu nekk affirmer nga sa ambition au mhm. moins gis nañ ne africain yi toog nañu def nañu seen projection à long terme wax nañu vision lii la ñu bëgg. Mhm. mébét boobu la ñu am. Mhm. donc yaakaar naa loolu déjà lu am solo la. Mhm. parce que jusque là peut-être dañu doon toog rek di piétiner def ay projet programme mais pour une fois ñu bëri lancé nañu seen vision prospective pour wax ne ne fii ak ay fanweeri at ak ay ñaar fukki at lii la ñu bëggal suñu réew. donc ko dem ba ba affirmer loolu. yaakaar naa. yow wane na nga au oh, moins yow sa bëgg-bëgg nii nga ko nii nga ko mën mais dug wax ne ne di caagee ne ne obligation boobu ñuy wax dafa fekk am na fu ñu ko teg. xam nga baa dama bëgg la guddal euh, argumentaire bi rek. mais pour wax ne ne xam nga am na am na. yenn pays am na ñoo xam ne. par exemple dette historique bi. wala répar am na ñoo xam ne ñoom. waxu réparation lañ doon wax par exemple monde diaspora bi. ñoom nee nañu seen maam yi ñu jëlee. fii ci Afrique yóbbu leen jaay leen. ci yeneen euh, réew yi mais loolu lan moo ko mën a fay. xam nga am na am na ñoo xam ne ñoom. foofu la ñu jàpp foofu la ñu jàpp waaw. waaw jàpp ci bu dëgër këng ne balaa fay bor ñun dañ ñu war a réparer ba pare. Mhm. donc tey kii bi bari na c'est-à-dire que argument yeeg bari na. fu ñu ko teg daal ko teg. rapport inégal yi aussi wax wax nañ ko. waaw donc je pense que juridiquement aussi wax nañ ko parce que tey quand même suñu waxee par exemple question droit à la santé. Mhm. loolu droit la àq mhm. léegi nag su dee yow euh, yemuñu. Euh, doole yemul. Mhm. mën-mën yamul te mhm. lii mu nekk droit mu nekk aq euh, boo xam ne mais ci biir loolu rek argument juridique boobu rek war na tey fexe ba nga xam ne tey ressources yu ñu war a am en tant que pays africain ñu fexe ba ñu ñu baal ñu euh, bor boobu. bor yooyu waaw. d'accord léegi mm. est-ce que nag am ngeen yaakaar ñu baal leen bor yooyu. dinañ ci am yaakaar à partir du moment où appel la ñu nar a lancer incha allah appel à la mobilisation de tout le monde. mobilisation boobu ñëpp a ciy taxaw gis ci seen bopp. wala ci gis seen bopp xam ne lii suñu baalee bor bii mooy permettre à ce que euh, ëllëg ak si biir li ciy jóge ci koom-koom ñu delloo ko ci njàng mi. Mhm. ñu delloo ko ci paj mi. Mhm. ah mhm. ñu fexe ba nga xam ne nii kii nga xam ne tey dafa bëgg a euh, créer entreprise am mu ngi ci euh, lu ndaw war a am ambition am lu mag ñu fexe ba may ko financement mu dem mu créer unité de production am. Euh, béykat bi nga xam ne ni tey au lieu que li muy béyee mu nekk matériel bu rudimentaire ñu fexe ba ëllëg ak si biir dina am tey équipement bi koy permettre ci li ñuy wax toujours équipement euh, renforcement de l'équipement par exemple au niveau du monde rural loolu machine yeeg et tout ça loolu ñu mën a am donc je pense que de dinañ ci am yaakaar parce que à partir du moment où leadership chef d'État yi ñoom ñooy taxaw face au à l'Occident pour mën a kaas loolu pour mën a taxaw ba nga xam ne ni tey boori ak institution internationale yi bien sûr. Mhm. loolu yëpp dinañ ci liggéey ak ñi nga xam ne ni ñoo ko war a saytu yàgg ci bind yàgg ci def ay évaluation parce que lii eh, coronavirus bi am ni contexte bi tey mhm, mhm. bépp programme bu taxawoon tey di financer ndax infrastructure yi fii gis nañu dafa am lu bari loo xam ne dañ ko fi tegoon te loolu yëpp tey remettre na ko en question donc il faut que mu am loo xam ne ni tey dinañ ko mën a amaat léegi yaakaar bi nga xamante ni am ngeen ko. Mhm. léegi tey par exemple tey su dee baaluñu africain yi man nag ñu baal ko africain yi laa bëgg mhm. mais su dee baaluñu dette bi mhm. euh, pays africain yi. lan mooy nekk conséquence bi ci réewu Afrique yi ak ak coronavirus bi ak jafe-jafe yi nga xamante ni tey euh, am na ko ci euh, ci économie réew mi. waaw yaakaar naa loolu moo may li ma doon wax ne ni évaluation yi nga xam ne ni tey experts yi xëy na ñoom ñu ngi ci sax xaaruñu ñu ngi koy def. pour xam ne ne conséquences yi dana metti dana dramatique ndax bés bu nekk yàlla soo ngeen gis ne yéen ci rajo yi fii soo xoolee rek nga nat wala ci télé yi secteur bu nekk yaa ngi jóg wax yow depuis deux mois trois mois lan nga dund. Mhm. donc ça veut dire que ne impact bi dina metti lool. dina mhm. metti lool su dee nit ñi amuñu ressources yi nga xam ne ni tey dinañu jël injecté ko ci secteur yooyu dina doy waar. d' ailleurs xool nañu ñun Sénégal naka la ñuy taxaw biñ ci taxawaay bi ñu ci def ndax gis nañu bi mu amee. gis ngeen ne ne dañoo def benn fond de euh, solidarité force Covid 19. Hmm. tey mu ngi nii dem di saytu pour xool secteur par secteur déjà rek pour au niveau social rek naka la ñuy fexe ba ménage vulnérable yooyu ñu mën a leen jàppale. à plus forte raison nag ñi nga xam ne tey dañoo nekk ay acteurs économique donc ku nekk yaa ngi secteur bu nekk tey ñu ngi xool tey lan lañ lay mën a joxe comme ndàmpaay comme dimbal au moins fekk su lii jeexee di nga mën a xool yow naka ngay mën a jógaatee. Hmm. donc secteur par secteur rek waxuñu nag réew. ak wala waxuñu bokk au niveau du continent donc il faut que ñoom tamit ñoo xam ne ne ñoom ils ont besoin aussi. de nous pour ah, ah, xam nga soxna si euh, mm-hmm. li nga wax am na mm-hmm. solo mm-hmm. yow euh, da nga bokk ci société euh, civile bi. nekkuloo yow bokkoo si yi ñu dénk sunu alal. waaw léegi xam nga tamit dafa am loo xamante ne dafa am xeex boo xam ne bu ñu bu ngeen bëggee ñu woo si Sénégal wala woo si sénégalais yi muy yomb wala nga woo si jeunesse africaine bi muy yomb xam nga mooy lan. gis nga baal bor yi moom lu xel euh, lu xel nangu la mhm. ndax boo defee évaluation di nga xamante ni tey euh, réew Afrique yu bari am na ñu jafe-jafe euh, mais nag dafa am lu am ci réewu Afrique yi loo xamante ni xel daf koo nanguwut munoo tey par exemple tey soxna si wax dëgg yàlla bokk ci parti politique mu dem ngu mu nguuru même pas cinq ans nga bëgg a nekk milliardaire wala nga bëgg fi yor alal joo xamante ni alal ju kenn xamul foo ko jëlee la loolu tamit ñun sénégalais yi sénégalais lambda comme man mii di waxe yoon ni may xalaatee mooy alal ji ñuy lebee ji bitim réew bu ñëwee au lieu que ñu def ko ci euh, jafe-jafe réew mi ay immeuble lañ koy tabaxee di ko dawalee ay oto seeni doom nekk fi di gundaan ndaat ak di saax saaxi alal réew loolu il faut que loolu tamit mu jeex ci réew Afrique yi bu ngeen bëggee. Euh, ndax fi mu ne nii africain yi du fu ñu de. kii euh, boo xooloon tey banque mondiale réew yi institution yu mag yooyu yëpp nga gis noonu. Mm-hmm. ñoom dañuy càmbar xaalisu Afrique. Mm-hmm. la fay dugg ci xaalis lan moo fan lay jaar. ñoom question boobu dañ koy posé lu bare bare mm-hmm. bare bare. Euh, léegi yéen seen kuréel bii nii. kañ ngeen koy structurer seen cérémonie bi. waaw léegi fu mu nekk nii mooy li nga wax nii yaakaar naa mooy li suñ ko suñu affaire annulation de la dette bi mais ñi ko ñi ci nar a jëriñu. jeunesse bi la. waaw mais lii ma loolu tax mais lii ma wax nii yéen seen kuréel bi dañ ko faa war di waxtaanee. Euh, xëy na lii kuréel bu bees la parce que affaire annulation de la dette la maa ngi lay wax ne ñi ko composé ñi ko composé bul fàtte muy forum social muy kongaat muy yeneen organisation syndicale ki ak yooyu mhm. question la yoo xam ne ni tout le temps ci biir ñi ñi ñi ngànk IADA mhm. bokk na ci ñi xeex affaire littoral bi mhm. li nga pour c'est pour la jox la exemple rek du gis nga ne ñi nga xam ne ni tey ñun ñii man sa ñun ñun ñëpp dañoo bokk ci forum social ak front ñi nga xam ne ni tey ñu ngi doon xeex euh, affaire euh, protection du littoral bradage du littoral mhm. gestion des ressources week yooyu yëpp mhm. donc ñun ñëpp dañoo nekk ci yeneen di euh, kuréel yoo xam ne ni dañuy taxawal askan di taxawal askan bi mhm. terewul lii dañ koy tere lu bees la dañ ko war a structurer mais la fa ñu doon xeexee démb ak barki démb ñu nga fa ba tey loolu il faut ni ñu ñi ñu garder loolu ñu nag tey ñoo ñëw bokk mais est-ce que tamit mais est-ce que avant kuréel gi tamit bokkoon ngeen si ñuy wax dañoo war di rendre compte. absolument foofu laa njëkkee nee naa la obligation de rendre compte. Ah. bonne gouvernance bi ñuy wax. waaw ah. euh, sobre vertueuse. Euh, euh, non quand je dis bonne gouvernance suñuy nañu suñuy ressources yii. suñu pétrole yeeg suñuy gaz yeeg nañu koy leeral ak yenn accord dañu leeral contrat yi ak contrat yi ni ñu ko war a signé signé nañ ko noonu est-ce jaar na yoon est-ce que réellement ñun gis nañ ci suñu bopp loolu yëpp dafa ah, fekk ne si xeex de procédure daal ngeen nekk ci yooyu yëpp ci processus yooyu ci ah, ñu a nekk génnuñu ci logique boobu ok donc il faut que à la kuliyaal yi loolu en amont loolu mhm. dafa bokk ci li nga xam ne mooy bataille mooy lutte bi nga xam ne ni tey c' est des yoo xam ne qui son porté par les organisations euh, euh, d' accord mais seen seen gi IADA bi nag léegi bokk à part ay Mody Guiro ak ñooñu ci organisation syndicale yi comme ni ma la ko waxee centrale syndicale yi gën a mag yëpp ñu ngi fi muy CSA CNTS comme ni ma la ko waxee euh, forum social sénégalais Kongat plateforme ONG yi Enda Tiers Monde ñi nga xam ne ni tey ay euh, personnalité lañu mhm. du monde universitaire de la société civile mhm. ak ay porteur de voix ay ministre Youssou Ndour ki nga xam ne yàgg na ci taxaw ci mhm. affaire question de la de l'annulation de la dette en tant que porte porte porteur de de de de de voix au niveau international ah ay acteurs culturels ñoom min Kalidou Kassé donc ñu nga xam ne dañoo nekk ci monde culture euh, ci ci ci monde artistique bi seen baat mën a yegg foo xam ne ni parfois sax xëy na chef d'état du fa yegg. Mhm. donc euh, organisation de famille organisation de jeunes yi. donc ñooñu ñëpp tey dañu war a ñëw ci structuration IADA bi su ñu demee ba lancer appel bi dina ñëw structurer te ñooñu ñëpp famille d'acteurs yooyu yëpp. danañ organisation yooyu yëpp. muy organisation paysanne yi muy plateforme yooyu yëpp dañu war a ñëw bokk ci yooyu. ak étudiants yi moom laa la wax ma ne parce que kañ lañ koy liggéeyee loolu jeunesse bi te tey gis nañu ne jeunesse yi dañoo taxaw. yéen lu ngeen bëgg a woote ay manifestation ngeen bëgg di woote wala lan. je pense que ni xëy na euh, comme ni ma ko waxee d' abord li li ñuy njëkkee mënuñu dévoiler parce que dina am benn plan d' action. bu ñu hmm. élaboré mais ok euh, mënuñu ko wax mënuñu pour le moment. mais li nga xam ne ni mooy li teew te nga xam ne ni fa la ñu war a commencé. mooy lancer appel bi mhm. ak lancer pétition bi d'accord léegi voilà euh, au niveau Sénégal ak niveau africain au niveau international d'accord incha allah jërëjëf euh, soxna Fatoumata si yow nga bokk si euh, IADA muy kuréel goo xamante ni dañu koo teg ngir réew Afrique yi ñu baal leen seen bor yi nga xamante ni tey maanaam moom la ñu amee mhm. xam naa moom bu ñu jógee ci Covid 19 bi dina tax chef d'État africain yi respecté seenu askan te bàyyee saax-saaxe seen alal ndax loolu lañ gis saax-saaxe alalu askan wi di si def loo xamante ne lu kenn xamul la waaw ah, je pense que ne nouvel ordre bi ñuy wax parce que ñu ah. ngi naan covid bi andi na nouvel ordre nouvel bi moom ah, fi war a njëkke mooy bàyyi saax-saaxe alalu askan wi je pense que loolu la ba pare di bañ di ñee tamit contrat yu la neex bàyyi tamit ger di euh, loolu lépp ci ci nouvel ordre mondial bi wala loolu commencé. léegi euh, Covid 19 bi soxna si dañoo gis ne euh, jamono ji yow en tant que euh, femme. ku jiite nekk ci wàllu wér-gu-yaram ndax yow ji yow yaa jiite centre bu bopp. léegi Covid 19 bi Sénégal dañoo gis ne askan bi dañoo bàyyeeku yow lan moo ci sa xalaat. Ah, waaw foofu moom dama ci lancé. Mhm. sama message ak appel. yaakaar naa tey tey bi tey bés bu metti la tey. ci résultat yi ñu dégg tey 4 4 décès tey moom. dafa metti lool cas communautaire yi. 19. Mm-hmm. ba pare. Mm-hmm. importé. waaw 27. 27. Mm-hmm. yaakaar naa nag donc il faut nit ñi ñu xoolaat bu baax a baax. comportement yi war a ñu bàyyeeku tey nag la ñu war a gën a laxasaayu. mais tey lañ gën a bàyyeeku. waa mais yaakaar naa nag lu war lool. Euh, xëy na euh, ci yàgg nañu yéen acteur communication beeg yooyu ñëpp ñu ngi naan xëy na problème de communication bi mais engagement communautaire bi. ñun xam comme ni ñu ko waxee ñun ñun on est au niveau de la base suñu programme de santé communautaire yëpp c'est porté par les communautés. Mm-hmm. il faut que tey comme ni nga ko wax na Dakar nag du Sénégal mais yàlla dafa def tey épicentre bi Dakar la. Mm-hmm. te xam nañ ne xëy na li nga xam ne ni am nañ ko ci expérience wala mobilisation communautaire ci yeneen diwaan yi. Mm-hmm. fii Dakar milieu urbain la. dafa des mais am na ay levier yu ñu mën a actionner tey dañuy ñaan vraiment ci gox yi li nga xam ne ni tey defoon nañ ko. mais bàyyeeku gi la. fépp la. fepp la mais tey dakaar dañu war a taxaw. waaw mais gis nga soxna si. waaw euh, mbirum euh, bàyyeeku. il faut comportement yi mais au plan euh, ni ñu ko waxatee ni ñu gisee feebar bi stigmatisation bi. Mhm. perception bi ñu ci am. Mhm. il faut que tey ñu taxawaat ñu xam ne feebar bi dafa am lu am la dafa metti mhm. ñu ñu ngi faj ñu ngi am ay résultat mais il faut que résultats yi ñu amoon suñu moytuwul. dana dem ba nga xam ne ni. leneen la day wëlbatiku. Euh, est-ce que njort nga lool comme li euh, docteur euh, Abdoulaye Boussa wax nee na bu ñu moytuwul catastrophe mën naa am débordement. waa xam nga acteur de la santé bu nekk niveau au plus élevé su demee ba wax loolu dañ ko war a déglu parce que tey yaakaar na amul tey ñu ñu war a déglu lu dul ay autorité médicales yi. mais tamit tey xam nga soxna si tey. mbir mu mel nii bu amee. Hmm. est-ce que communication beeg gestion bi est-ce que mënuñu woon see dugal ñeneen mën a mënoon war nañ koo mën a gën a yaatal ci base bi. lan ndax loolu yow gisoo woon looloo aussi. si gis naa ko gaa dañuy wax ne yaatal nañu su yaatal nañ ko am na ñu ci bokk mais man tey yaakar naa dañ ñoo war a gis ñooñu. Mhm. place boobu. exactement place communauté bi. communauté bi il faut que tey génne tamit ñiy seen image ak yooyu. que porteur de voix au niveau. la voix de la communauté. il tey ñu porter ko. il faut que tey ñu gis ko. il ñu teg ci suñu bët. te am nañ ci expérience. Mhm. le VIH Sida mu ngi fi. Mhm. ñun boobu ñu ngi door ci terrain bi. amul leader religieux leader mm. communautaire amul ku jógul mm-hmm. laxasaayul taxaw mm-hmm. fekk waxoo ci maanaam kuréelu femmes yeeg yëpp bu leen si intégré woon dès dès le par exemple kuréelu femmes yi ñoom xaaruñu riposte mm-hmm. kii yeeg man bokk nañ ci kuréelu riposte organisation de femmes ndimbal bi bi ñu waree joxe ñoom bu yàgg la ñu dem au niveau de la base joxe bàjjenu gox yi ñu ngi coxaw tem di dem di def ay visite à uh-huh. domicile di wax ak uh-huh. nit ñi mais léegi nag li ci des même mënoon si boole étudiants yi sensibilisation bi boole si daayira yi sensibilisation bi mais yooyu yëpp amul par exemple tey li nga xam ne quand je dis de la communauté su religieux bi waxee am ah. nañu ay réseau yoo xam ne nii mhm. c'est des réseaux naturels de solidarité su ma la nee daayira su ma la nee mbootaay su ma la nee tontine su la nee groupement il faut que voix boobu leader bu ci nekk mhm. yow nga am message boo xam ne di ko sànni taalibe yi dégg ko membre euh, mbootaay yi dégg ko membre tontine yi association sportive yi mouvement nawetaan bi au niveau de Dakar il faut que taxaw ñu porter au niveau virtuel ok mais seen voix la ñu war a dégg tey nañu occuper espace Euh, communication sociale bi ak espace communication. mais xam nga soxna si euh, ñun suñu njiit yi. waaw euh, ñu baal ñu ñu baal ma mais dafa am loo xamante ni tamit dañ ko tàmmal askan wi mooy gis nga askan boo yore saw askan da ngay fexe ba di leen wax dëgg maanaam li ngay wax muy nekk loo xamante ne looy jëfe la mais gis nga sénégalais yi soo leen tàmmalee wax loo xamante ni tey dañuy dem ba sa digg ba duñ ko gis bu ëllëgee si biir boo leen waxee mbir. comme lan par exemple. comme par exemple tey soo gisee non dañ ñuy dig yenn mbir. Mm. dañ ñuy dig comme par exemple da ngay gis njiitum réew na du def nangam. Mm. ñu jekk-jekk dem ba sa digg ba mu def ko. loo xamante ni euh, internet daf koy wane. vidéo daf koy wane audio daf koy wane. Mm. nga gis kilifa gu mag ne du ma def nangam du ma du ma fa def nangam. loolu nag bokk na ci ci li li ñu li ñu li ñu. li ñu ñu lor loolu laa lay wax réseaux sociaux yi. parce que maa ngi lay wax ne ne am nañ ci expérience mais yàlla def na boobu ba ñuy am expérience boobu réseaux sociaux amul whatsapp amul leneen amul xëy na loolu moo doon chance bi tey nag nag la ñu mën a fexe ba am engagement communautaire bi ba fexe ba message yi jàll ñu accepté ko mu am une appropriation ñu fexe ba fake news yi réseaux sociaux yi information yi ñu ciy jàllale naka la ñu mën a fexee ba contrebalancer ko dafa fekk nag dafa gaaw. waaw uh-huh. mais xam nga tey par xam nga tey malade bi malade yi am na si loo xamante ni. Mm-hmm. yow nga wax ko askan bi dégg la wala keneen wax ko askan bi dégg ko gëm ko. Mm-hmm. dafay gën a yanu maanaa léeg-léeg te homme politique bi wax ko ndax homme politique yi ñooñu tàmmal loolu ñooñu tàmmal loo xamante ni da ngay dégg sax ko ne la waxu politicien nangam loolu moo tax ma ne la bi dafa am ñeneen ñoo xamante ni dañu waroon a tàbbi sa biir ndax ñee moom dafa mel ni dafa am fu leen askan wi classé ba pare. Euh, ma ngi noonu léegi soxna si euh, lan ngay euh, tàggoo. waa li may tàggoo mooy comme yaa ngi jeexale ci affaire mesures yi ñu war a jël. Uh-huh. mënuñu pare wu pare ci communication bi fekk waxuñu comme ni ñu ko waxee rek encore renouveler. Mm-hmm. engagement communautaire bi mais surtout respecter mesures barrières yi ñuy wax mooy li mm-hmm. ngay wax ne bàyyeeku bi am mm-hmm. tey la ñu war a gën a raxasu suñuy loxo tey la ñu war a gën a utiliser gel hydro euh, alcoolique tey la ñu war a gën a désinfecter li nga xam ne ni moom la ñuy utiliser saa su nekk tey la ñu war a gën a takk suñuy masques yi donc tey la ñu war a gën a respecter distanciation physique bi ñuy wax comme léegi bàyyi nañu yëpp libéré nañu espace bi nit ñi ñu ngi dem ak di dëkk nee nañu nañu dund ak doomu jàngoro bi. Mhm. loolu nag dafa tekki ne responsabilité individuelle la jël. il faut que citoyens yi ak citoyennes yi góor ñi ak jigéen ñi mag ak ndaw ñi. Mhm. ñu fexe ba ñu aar suñu bopp aar suñu bopp mën a aar suñuy njaboot mën a aar suñu mag ñi parce que tamit loolu yàggar naa docteur yi fan yëpp ñu ngi koy insister. Mhm. ñu fexe ba xale yi nga xam ne ñu ngi génn ak période tàngaay bii di dem plage di defi sport ñoom ñooy dem c'est des porteurs sains dellu si seen njaboot seen famille jox ko seen mag jox ko seen i maam jox ko seen i papa jox ko i yaay donc il faut que ñu dellu si waat loolu leneen li ma ci jeexalee mooy ne initiative bi nga xam ne ni tey ñu ngi koy teg mooy initiative pour l'annulation de la dette africaine ñu ngi ciy xalaat ñu ngi ci gëstu ak ñi ko ŋànk ñëpp ci gannaaw bi nga xam ne ni moom initiative bi jóge na ci chef d'État yi leadership président de la République du Sénégal euh, son excellence Macky Sall affirmé ko porté ko ñun ñu ngi structuré wu organisé wu de telle manière que am benn cérémonie de lancement boo xam ne dinañu lancer initiative bi lancer appel bi lance pétition bi. d'accord voilà donc maa ngi leen di gërëm di leen sant. jërëjëf euh, kon mbokk yi maa ngi noonu euh, seen émission pencum réew mi la woon ngeen àndoon seek euh, Abdou Khadre Seck Adama Diallo moo nekkoon ci wàllu technique bi ñu leen di jox di daje samedi bii di ñëw incha allah jërë ngeen jëf.